suñu jaar jaar daal dañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam xanaa wax ni su ko xaar yi doon jar doonaa ko am. abonné wu ci seen YouTube bu Ndiamé TV bësal na station bi nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour. ku barkeel la ku yàlla barkeel la si saayar ak si baatin ku ko yëg ak ku ko yëgul di siyaare suñu soxna si ñu seet si. mu indil ñu suñu leer di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko wér defal tuttànk bi gudd fan muccal ko ci ay muccal ko ci musiba teel ko boppam muy li indaale muy islam ba buy wuy waat boromam mu delloo ko wér ci doone laa ilaha illallah di siyaare rijaal yi fi toog yépp suñ jëwri ni mbokk taalibe yi suñu yaay booy soxna yi toog ci coono bi dëkkandoo barke yi yi ko teewal saayar ak ci bi di wax ni li ñuy njëkkee ci waxtaan bi rek dañuy sof suñuy wax si kaddu yi Cheikh Famara suñu jëwrin ci kaddu yi rafet yi te mat matale kaddu yi rek matoon na lépp baax gee tax rek ak yaatu gi bëgg mu yaatu ci jaamu yàlla yi yéen it jaamu yàlla yi dëgg-dëgg dëgg leeru dëgg gi nga xamante ne ni moom la Cheikh Barka di tàllal ci bërëb bii muy leer bu tumuranke muy ban leer muy leeru laa ilaha illallah di leer goo xamante ne nii képp ku ko yor ku ne yor nga dëgg yor nga njub jàmm ñi nag danañ la umpale dinañ la dëkkal foo xamante ni nii dëkkuwul di nga tumuranke si saayar waa doo tumuranke si baatin di leer goo xamante ne nii yambar du ko yor yaafuus du ko yor ku naw sa bopp du ko yor ku dese bakkan doo ko yor ndax dafa tàng ndax xat yonent bi salaa salaam moo ne adduniyaa sajaratul mu'minina wa fi jannatul kafirina adduna kaso la ci way gëm yàlla bi waaye nag ajjana la si ki weddi yàlla su ne la adduna kaso la ci way gëm yàlla bi mooy kan mooy ki nuur ci adduna gis ay kër yu rafet gis oto yi rafet gis soxna yi rafet gis bois de nuit gis milliers yi top aduna ba lab sibir aduna ndax geej la go xamanteni kep ko gis sobu ta amo gal go ci doxé de nga lab si geej koku nak ci si lay nek dañ koy tag tay bis bi bu don Baye Barka ci way bobu la tolo tay gi gis nga geweli wor ko bi wor ko mi wor ko bongo yi wor ko musique bi wor ko fi yeb di bëggee mu nuru aljana nuru lu neex fek sawra la si ñom barke leeru laa ilaaha illallaah waaye nag wan loolu gimmal loolu ginnaaw jublu moroomam moo tax bis nii gis nga ni mu tumuraanke ku dul mbokkam si yàlla teewoo fi loolu rek joxoñ na baatin bi kon Baye Barka sa cër la sa liggéey la ci yàlla sa maxaama moo la may lii yombul mu ni wasi jannatul kaafiriina kon àjjana jooju mooy àdduna yëfar bi weddi yàlla lépp lu am si àdduna ci bànneex fii la yem dee moo ko teree tàbbi sawara jullit bi nga xamante ni jébbal na boppam yàlla dañ koy noonoo dañ koy weddi dañ koy tuumal dañ koy xeeb dañ koy suufel loolu mooy sawaram moo tax du dugg ajana mukk te jaarul sawara ala kulli haal xamewul bàyyi bis bi li muy neex-neex li rafet-rafet limi taru taaru dara la ci xamul lekkul si lekk yi naanul si naani naanul poisson déggul musique degul waxtaan billaahi ndax leer gi gan na ko wër na ko saayir ak baatin ësal ak ëbët ko ba leer gi ji la yàlla yónni la yont bàyyiwu la yàlla du bàyyi jaamam kenn du am sa alal di ko bàyyi yàlla bàyyiwul kenn moo tax kenn ku si nekk yàlla dina la yónni yonant ala kulli al soo namee texe mu ñëw wax ak yow fàttali la woo la rek nga daal di dënmal rek àdduna rek ndax neex gi neex moo tax ñuy wax ne sunu maam àjjana sunu maam aadama ba mu tàbbee àjjana ba neexee àjjani ak neexaay bi moo taxoon mu fàtte boromam ba may boromam loolu kenn génnu si du démb du ay démbi démb tay la kon jaam ñi nañ dellu seen borom moo tax yàlla ne ko fa zakkir fa inna zikraa tanfa'ul mu'miniin dama nga fàttali jaam ñi kon dañoo fàtte yàlla rek waaye xamoon nañ yàlla ndeke kon dañoo fàtte yàlla rek kon ndeke gisoon nañ ku waay taxawaat tey di wax ne yàlla dañ koy xam dañ koy dañ ciy egg dañ koy gis ngay naqa sa xel ak yow xamoo kan yaay kan aduna pakk na la lab nga si géeju safara barke leeru laa ilaaha illallaah kaddu yi nag dañ koy tënk rek pour mu gàtt ndax bis bi dafa yaatu dañoo bég dañoo kontaan ci seex barke muy seex barka barkeel na barkeel leeru laa ilaaha illa sinon foira ku ko wuy sa ku ko wuy suut moom moo yor sa ngëneel moo yor sa njëriñ ndax moom la yàlla jox leeru laa ilaaha illa ci koñ bii nii mu attan ku ne jëmm jure ju toog fii xam nga ne seex barka attan na ku ne mën naa dëkk ku ne alal mën na ko bokk ku ne waaye jàmm boobu saa yi bu la wooyee ki dëgg leeru dëgg ngay naxa sa xanda yow yogolu xew ndax lan loo xeeb kon sant wa nga xeeb wala tur wa wala lan melokaan ba te yàlla kenn du ko xeeb si lenn kenn du ko xeeb si kenn ndax jaamam ñëpp ay jaam yàlla kenn ku si nekk dana jël këram def ko si yow bu la jaam ñu wuy siwul mu mbugal la ndax ñoom billaahi wallaahi wa taalaahi kon ñu ngi ko daal di sant di gërëm di gërëm kullukum koo xamante teew nga ci bërëb bii di gërëm waa kër gi yëpp di leen sant di leen tuubal di leen jégalu ci doole laa ilaaha illallaah asalaamaaleykum wa rahmatullah suñu jaar jaar dañoo nekkee ndaw bëgg xam-xam danaa wax ni ko xaar yi doon jar danaa ko am. abonné wu ci seen bu Ndiamé TV bësal notification bi ñu tàmbal nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour.